vingt ans yoo xam ne ñi nga xam ne ñoo di sénégalais yi dinañ ko nekk ci suufu parti bii di fa mën nañoo jàpp que ne mu nekk ñeenti mandat yoo xam ne kii di président Bassirou Diomaye fay ak ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko dinañu ko daal di partager ci seen biir du samay kàddu di kàddu ki nga xam ne moom moo di jëw jëwriñ Ndiasse gannaaw sax ba ñu ko daal di laaj rek ci juróom fukki at yoo xam ne kii di président Ousmane Sonko ak gàngooram mën nañ koo gouverner réew mi di Sénégal mu ne lu mën a nekk la wante dafa jël lekk li nga xam ne moom moo gën a yem te li waral kàddu yi ni mel mu daal di fësal kane dafa am ay leader yoo xam ne ñi ngi ci parti bii di Pastef wala boog sax ñu nekk ci gouvernement bi ku ci mel ne maître Ngagne Demba Touré mën nañ ko see cité mu yóbbaale ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne gis nañ kane yelloo nañ bopp réew mii di Sénégal ci seen liggéey ci seen taxawaay ndaxte ay cadre lañ te nag fa ñuy ñoree foofu mooy fañ leen di soxla tax rek moom mii di jëwriñ Ndiassé daal di siy yëkkati ay kàddoom yoo xam ne yu yaatoo yaatu la di fësal kenekat Sonko ak Bassirou Diomaye fay pare guñ te timit xalaata gu ñoo pare ci réew mii di Sénégal ci liggéey yi nga xam ne war nañ koo amal gannaaw ba ñu ko dooree ak 100 yi nga xam ne am nañ ko ci bopp réew mii ay changement yoo xam ne jot nañ ko nemmeekooguñ jamono bi ñu toll ay liggéeykat yoo xam ne rek jot nañ leen a formé gun wala ko ñu ngi ci ay formation pour rek mën a doxal lépp loo xam ne jàpp nañ que ni réew mi di Sénégal war na koo soxla woo est que nag loolee dina tax réew mi développé lu si manti am mooy que ni ñoo ko dig ñi nga xam ne ñoom ñoo di sénégalais yi ci seeni campagne kii di sonkoo ak kii di Bassirou Diomaye fay te nag digg yooyee nekk loo xam ne rek sénégalais yi ñu ngi ubbi seeni bët xippi di xool ba xam fan la wànnent di mujjee ak ay gëtam dana am waaw wala déet lu ci mënti am li ci kanam raw li bët di leen di jaajëfal ci topp gi sa fooge ak faale gi